moo ñuy defaral thème bi thème bi nag comme nu ñu ko waxee woon c'est la place de la jeunesse euh, ci li nga xam ne moom mooy dans l'islam donc lépp la place de la jeunesse dans l'islam moom mooy thème bi donc ci kàttanu borom bi subhanahu wa ci bañ a guddal kon dañuy bàyyi oustaz mu daal di ñuy faram fàccee point point boobu noonu bismillahi tabaraka wa kon oustaz insha allah tafadal mashkour nastainuhu wa nastaghfiruh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 mi nga xam ne ay xéewalam ci ñun suñ ko bëggoon a wàññi duñ ko mën a peeg bokk ci xéewalam yooyu dajale gi mu ñu fi dajale ñeenti fan yi ku nekk jóge min kulli fajjin amiq ku nekk jóge ci gox am ñoo xam ne jóge nañ ci gox yu sori ak ruq yu sori ñu dajee fii te li ñu fi dajale du jàng ak jàngat suñu diine ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala defal ñu yéene yu sell ci mbir moomu te lépp lu ñu fi taataanee ci xam-xam borom subhanahu wa taala boole ñu si ñu koy dégg te yombalal ñu jëfee gi yombalal ñu it wesaaree ko bu ñu ñibbee wali yundiru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdaruun ñu ñëpp ñu fi ñëw ñëpp képp ku fi ñëw na yóbbaale loolu na bàyyi xel loolu wa ma kaana almuminuuna li yanfiru kaafa ñëpp mënuñoo ñëpp ñoo laxas jàngi wala ñëpp ñoo dem xarej ci ñaari firi ni ko borom xam yi firé waaye faaw am ñu ko defi ñoo xam ne suñ ñëwee dinañ mën a xibaare ñi demutoon kon ku fi nekk xam-xam boo fi taataanee mu néew mu bari donte ne benn aaya la bu leer ci sa bopp bi soo demee na nga ko jax sa waa kër njëkkee ci sa waa kër sa njaboot wa andir ashiratakal aqrabin na wesaaru ci koñ ba waaye fépp foo xam ne da nga fay fréquenté fexeel li nga fi jëlee donte ne ab aaya la bu ko xeeb ndax yunus saa salaam lu mu wax balligu anni walaw walaw aaya fexeel daal li ngay wax moom na nekk loo xam ne loo mën a firndeel la ndax xam-xam ak woote day tabaxu ci firnde qul hadihi sabili adu ila allahi ala basira sama yoon mooy woote jëmale ci yàlla subhanahu wa taala waaye mu tege ci xam-xam kon jotaay bi nekk jotaay bu mujj ci lël bi di ñaan borom subhanahu wa taala mu yombalal ñu ñu del dellusiwaat fi ane yu bëree bëree bëri di amal lël bi te njariñam di gën a yaatu jotaay bi comme neen ko xamee comme ni ko bat ji waxee al ustaz Mor Kebe xafidahu llah wa xafida jamia machaayix ahli sunna wal jamaa wa xafida al muslimina jamian moo ko waroon taxawee ngir mu nekk miskul xitaam waaye ak ndog dal ko mu am ngànt ci loo xam ne mbokk yi yéex nañ kaa yëg mbokk yi bañ jotaay bi neen moo tax ñu ne benn waay bu tudd a gay ñëwal toog fi wax fi yenn kàddu yoo xam ne peut-être jotaay bi du neen waaw mais du remplacer al oustaz Mor Kébé pour wax fi mu fi waroon a wax ne ko xamee loolu ku ci xaar loolu di nga ci am déception dégg ngeen kuy xaar ibrahim Gaye toog toogaayu oustaz Mor Kébé wax fi li fi oustaz Mor waroon a wax di nga am déception bu rëy boo xam ne soo moytu dina tax bu ñu la wooyee tey séminaire doo ñëw bu leen xaar loolu de Ibrahim Gaye daa toog rek pour ñu waxtaan loo xam ne waxtaanu diine la amaana moom mu jariñu si yéen yi déglu it mën cee jariñu ndax tem bu mu mënti doon thème bu mu mënti doon ci thème yi ñuy waxtaanee kenn ku nekk ni mu koy jàngatee day wuuteeg naka keneen ki di jàngatee même thème bi thème bii ñuy waxtaanee Oustaz bu fi toogoon peut-être dina ko jàngatee ci angle boo xam ne Cheikh Mouhamad Ahmad bu fi toogoon dina ko jàngatee ci beneen angle Omar Diallo bu fi toogee jàngatee ko ci beneen angle keneen ak keneen bu fi toogee jàngatee ko ci beneen côté euh, borom xam-xam yi ku si nekk da am lu ñu tuddee te xasus spécialité ku si nekk sa jàngit sa jàngat booy jàngat benn thème sa spécialité da ciy feeñ bu baax a baax Cheikh Mor hafidahullah euh, boroom xam-xam bu mag la bu xam-xamam yaatu rawatina ku xam jamono la ku xam jamono euh, dañuy waxtaanee ndaw yi te ndaw yi di waxtaanee ñoom xam jamono da ciy am solo moo tax euh, peut-être li mu fi doon wax bu fi toogoon lu jege deux dix pour cent ci angle boobu ñun du ñu waxee ci angle boobu peut-être ñu waxee ci beneen ci beneen angle ndax tem la boo xam ne thème bu yaatu la lan mooy palaasu ndaw ñi ci lislaam loolu thème bu yaatu la. borom xam ne taalif nañ ci ay téere def nañ ci ay conférence gudd gudd gudd gudd dañ naan lu li duuf ci nag wi li duuf ci nag wi ah aw mi dégg wolof la ñu bari dañ naan li duuf ci nag wi xajul ci loolu la ci waaye su fekkee da ngaa rey nag chaque jour nga togg kilo chaque jour nga togg kilo bés dina ñëw nag bi jeex de waaye mënoo toggandoo nag bi yëpp ci benn cin kon li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li thème bi li ci duuf yëpp mënuñ ko wax tey kon mën nañ ci euh, wax ci yenn point bu ëllëgee du ñàkk ngeen teewee beneen conférence wala beneen dars boo xam ne di ngeen dégg boroom xam-xam yi euh, wax ci ci anam woo xam ne mooy gën a leer mooy gën a dëppoo xam-xam mooy gën a jotale ndax kiw jàkkaarloo ngeen di wax ndongo la boo xam ne day jàng pareegul bokk ci nongoy Mor Kébé yi xafidahullah kon loolu mooy thème bi lan mooy taxawaayu wala lan mooy palaasu ndaw ñi ci lislaam nit mën naa laaj ne lu tax waxuñ lan mooy taxawaayu nit ci lislaam wala mooy taxawaayu góor ñi ci lislaam bu ñu waxee góor nag mooy ñi nga xam ne âgé nañ tuuti wala mag ñi lu tax ñu ñu wax ndaw ñi te waxuñ mag ñi masalan te mag ñi am nañ taxawaay bu am solo ci lislaam lu tax ñu wax ndaw ñi loolu mën nañu wax ñaari mbir a ko waral ñaari mbir a ko waral mbir bu njëkk bi mooy yonent bi sallallahu ku xéroon la lool ci former ndawi saxaaba yi ak préparer leen préparer préparation boo xam ne dañuy mën a yenu risaale bii di risaalatul islaam mën a yenu lislaam wesaare ko ba mën a àgg fépp ci àdduna bi ndax borom santaala daa wàcce ci moom diine ji pour mbollem nit ñi wama arsalnaka illa illaa kaafatan linnaas bokk na ci li wote yunus sallallahu alayhi wasallam wute ak yenen wote yi moy yonentu bu nek dañ la daan yónni ci sa xet kesse mom dañ ka yónni ci aduna bi yep te yonent saa sallam xam na ne mënta wër aduna bi sallallahu alayhi wasallam dëkk yi dem bari wul génnul tay jamono ji su fekke frontière yi nga xamne mom la Nations Unies yunus sallallahu alayhi wasallam génnul Arabie Saoudite dëkk yi dem yep جن العرب سودي ما كل جدو قاعد دا مدينة دمنا طائف دمنا تبوك دمنا خيبر دمنا بدر جارو دك يب دك يو نتود يب وين كبير العرب سودي تقول تمي رفورة إج فنك الله برس أنت على وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج كون فنك الرسالة بورا إج kon faaw mu préparé ñoo xam ne ñoo fay àggale risaala bi te am na loo xam ne mag mënu ko yenn coono yi yenn voyage yi nga xam da ngay da ngay gàddaay sa réew am na saxaaba yi ñoo xam ne ñu saa salaam faatoo ñu saa salaam ba muy soog a faatu Omar ibn al-Khattab Abu Bakr nekk xalifa saxaaba yi génnuñ ndax xilaaf ak Abu Bakr yàggul deux ans ak six mois Abu Bakr ba mu faatoo Omar nekk xalifa Omar def na dix ans ak lu teg ay weer saxaaba yi Omar da leen a tere woon ñu génn Madina mënuñu woon génn waaye bu Omar faatoo nag ci lañ génn nag tasaaroo ci àdduna bi ñi dem Kuufa men ne Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas dem Makka ñi dem Basra ñu tasaaroo ci àdduna bi Anas ibn Malik xam ngeen ne Basra la faatoo ah ñu tasaaroo ci àdduna bi mooy ki mujj faatoo Basra ci saxaaba yi pour tasaare xam-xam bi am na loo xam ne mag mënu ko xale moo mën a bàyyi dëkkam gàddaay ko ba faatu fekk ko ci àll bi mag am na lu muy amee njaboot am yenn responsabilité du mën a génn kon Musaa salaam xew xeroon na lool pour préparer leen ñu mën a gàddu responsabilité boobu pour wesaara ko ba mu mën a egg tey Sénégal nga xam ne digganteem ak Madina kenn xamut nu mu toll loolu yëpp ndaw ñee ko ndaw ñee ko yenn woon Musaa salaam xeroon na lool ci préparer leen ci anam yu wuute bokk na ci anam yooyu xeroon na ci préparer leen ci ñu nekk ndaw yoo xam ne dañuy fuglu seen borom di ko bàyyi xel ñu tuddee muraqaba مقام المراقبة دم دي مقام بو خامن مقام بو كوي لا نيت كي بو تي فيك اغو تي رك مننا تابي تي اي رق رق موي باي خيل بروم بي سبحانه وتعالى يمالي رغال كو تي كانمو نيت ني ويتي دول المراقبه موي الاحسان الاحسان موي لان جبريل الله عليه وسلم نم كو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك borom bi subhaanahu wa taala moom nga jaamu ko ba mel ni yaa ngi koy gis mënoo kaa gis nag dangay ngay teewlu ba jàpp ne yaa ngi koy gis mais mënoo kaa gis kenn du ko gis ci ci kaw suuf abadan rax euh, euh, nu mu ko raxma an fi euh, baadihim kenn mënta gis borom san sala ci kaw suuf kenn mënu kaa layal loolu kenn mënu kaa layal rawatina yàqabatan nag kenn du ko gis àjjana nak dinañ ko gis ak yowmal qiyaama yàlla ñu borom sant taala boole ci ñi muy teralee ñu gis bés bi àjjana naam ladina ahsanu al husna wa ziyada ziyada gogu moy gis borom bi subhanahu wa taala kon julit bi xam na ne ta gis boromam waaye na xam ne boromam mi ngi koy gis fa in lam takun taraahu te doo ko gis mukk fa innahu ngay teewlu loolu loolu mooy fiqhu al asma wa sifat توحيد بوب ني تودي توحيد الاسماء والصفات ني بري سي ني دنج كاي جانغ مي خامو ني نيام دغ دغ دغ من ناي كومبراندر توحيد الربوبيه كومبراندر توحيد الالوهيه مي توحيد الاسماء والصفات nga xamne kurel yu bari askano ci l'islam ci lañ djoumé même ñi askano ci sunna yeen say lim leen wara jariñ deug duñ ko jariñu توحيد الاسماء والصفات غناو بيغا ساخالي تورو يالله بانكا داخ كوم ني الجهميه داخ تورو مي gannaaw bi nga ko saxalalee melokaan yi ne tur bu nekk dafa làmboo melokaan bañ koo dàq comme ni ko al mu'tazila dàqee ak al ashaira al ashaira juróom-ñaar lañ ciy saxal yow nga saxal yépp turam boo saxal da ngay saxal ne tur bi ànd na melokaan bokk na ci ay turam as-sami' yàlla ne bokk na ci samay tur as-sami' aji dégg ji nga saxal ne yàlla bokk na ci ay turam aji dégg ji doo ko dàq comme ni al jahmi def tur boobu dafa làmboo melokaanu dégg ku dégg est-ce que dinañ ko tuddee aji dégg ji moo tax ku dul julli kenn du ko tuddee aji jullit jullit tudd jullit te doo julli naam nga saxal ne tur boobu di as samia dafa làmboo melokaan muy lan dégg boo santaala day dégg mais loolu lu mu lay jariñ mooy nga fuglu ko ci lépp looy wax soo tollul foofu rek comprendre ko al asma wa sifaat comme yàlla day dégg koy dégg li nga xam ne dafa fés dañ koo fésal ak li nga xam ne dañ koo wax ci suuf naam boo santaala nee na fu ngeen mënti toll di waxtaan maa ngi leen di dégg maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum mi ngi leen di dégg wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa maahum aynama kaanu so xamee loolu nag comme que yàlla mooy assamia day dégg du ma wax dara lu neexul yàlla loolu mooy muraqaba loolu mooy fiqhul asma wa sifat soo xamee ne yàlla basir bokk na ci ay turam mooy aji gis ji aji gis ji làmboo na melokaanu lan melokaanu gis kon yàlla day gis fiq bi ngay jëlee ci turu yàlla boobu mooy doo def lenn loo xam ne lu neexul yàlla ndax mu ngi lay gis mu ngi lay gis dara umb ko naka nonu yenen turi nun ko koy jappé bam jeex xamna yàlla moy ar razzaq bokku na ci turam yi ar razzaq ar razzaq tur la boo xam dafa lambo melokanu ar razq bi fatxi ra da fay da fay wërsëgal li ngi ciy jangate jeexintal mi am moy soy ñaan wërsëg ko koy ñaan moom nga koy ñaan non ngay jëlee turu yëpp bam jeex moy fiqul asma wa sifat yunus sallam nak lolu bokku na ci lim doon préparer ndaw yi ñu am maqamul muraqaba di fuglu yàlla di ko bàyyi xel moo xam dañoo nekk ñoom dong wala dañoo nekk si kanamu mbooloo mi jullit dëgg rawatina ndaw ndax mag ñi seen seen mbir jàll na du taxale diggante al jalwa wal xalwa laa yufarriqu bayna tasarrufaatihi fi l wa tasarrufaatihi fi l jalwa ni muy comporté woo su nekkee ci al jalwa mooy fi nit ñi nekk ci lu fés noonu lay comporté woo su nekkee ci al xalwa mooy su nekkee mom dong mais su fekkee ne yow say comportement boo wéetee wuute nag say comportement boo nekkee ci kanamu nit ñi xoolaatal sa bopp amoo maqaamul muraqaba ñu saa salam kon bokk na si lim mu doon préparé sahaba yi ndaw yi mooy ñuy fuglu yàlla ndax loolu ku ko ñàkk rek sa say jëf du bëri njariñ torop wallahi ñu saa salam nee na ci xadis boo xam ne ahmad génn na ko ak abu yaala nee na inna allaha la yajabu min alshabaab alladi laysat lahu sabwa yàlla day yéemu ci ndaw goo xam ne defut ay njuumte ci ndawam loolu nag xam naa ne bu dee jamono jii la moom bu dee loolu kese tax yàlla di yéemu ak yéemam dina néew ndaw goo xam ne defut ay erreur jeunesse nee na yàlla ndaw soos ndaw loolu da koy yéem yàlla day yéemu ci ndaw loolu xadis bokk na ci li ñuy jàngal mooy saxal yàlla saxalal yàlla melokaanu yéemu loolu ñu saa salaam saxalal na ko ci ay xadis yu bari ndaw lo xamne erreur de jeunesse tabbi wu ci naam bokk ci lim non don doon doon len ci teunku ci jaamu yàlla ak taqoo ko topp borom bi subhanahu wa taala jaamu ko ak wammatul ko maa kay wax sank wammatul borom bi subhanahu wa taala ci atemi mo xam xam nga cause yi moo xam xamoko xam nga lan motax mu mu farataal farata gi wala xamoko ndax farataay borom santaala borom santaala ay atteem dafa am ñaar dafa am lu ñuy tuddee al ibadatul muallala wala al ibadat al macqulatul maana am al ibadatu taabudiya wala ñu nga al ibadat gayru macqulatil maana dafa am ci atte yàlla yi loo xam ne da koy da lay wax cause bi lu tax mu yoonal ko ba nga xam ko loolu lan mooy njariñ li pour nga xam ne borom santaala du atte ci ay caaxaan yàlla du caaxaan comme ni ko Omar Diallo waxee bërki démb fii yàlla afa afa euh, bon santaane mooy da ngeen a foog ne dama leen a bind abasan yàlla amut ay caaxaan moo tax mu lay leeralal yenn àtte yi pour nga xam ne lépp lu mu àtte rek cause bi lii la wala boog lépp lu mu àtte lii dëppoo xel yenn saa yi nag mu àtte àtte yoo xam ne ay farata wala ay mbir yu mu araamal doo xam cause bi te doo ko doon wër sa xel lu mu rëy rëy rëy doo mën a daj cause bi. loolu lan mooy njëriñam pour mu xool ba xam yow ku wommatu nga wala yow lu dëppoowut ak sa xel rek doo ko topp am na nit ñoo xam ne lu dëppoowut ak seen xel wala lépp lu ñu xamul cause bi duñ ko topp ñooñu dañuy daanu ci bunt boobu. misaal yi bëri na julli tisbaar li tax ñu koy julli heure boobu loolu mën nga mën ngaa daj cause bi mënoo kaa xam mënoo xalaata xalaat ba tax ba xam li tax yàlla subhaanahu wa taala di ñu julliloo tisbaar ci waxtu woowu li tax mu def ko ñeenti rakaa mënoo muusaka waane ba xam lan mooy cause bi. waaw njàpp cër yi ñuy raxas bàyyi yeneen yi mënoo muus ak a waane ba xam cause bi almasu alal xuffay nii sooy sooy masaa say xuff wala say kawas li gënoon a dëppoo xel mooy nga masaa ci lu tax ma masaa loola ci kaw loolu sa xel mënu kaa daj loolu lenn rek mooy tax nga mën kaa jëfee mooy nga nekk ku wommatul yàlla subhanahu wa taala te xam ngeen ne bokk na ci shuruutu laa ilaha illa allah mooy lan al moy wommatul ko wommatu nak ki nga xamne dang ka nga mi ngi melni ni dafa laxas chaîne ci sa baat bi rek ki nga xamne da daa xaram ndax di ngeen gis xar mi moom mu jàdd droit xar mi jàdd gauche loolu moy wommatu loolu nak yàlla subhanahu wa taala dong lañ koy defal ak yontu bi sallallahu alayhi wasallam duñ wommatul benen nit ci kaw suuf ndax mën na joom ñi du joom lañuy ñuy muy borom subhanahu wa taala ak yontu sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne yàlla mo garantie ay waxam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxaa kon ñu saa salaam daana waajal ndaw ñi ci tàggat leen ci jaamu yàlla ak wommatul borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ci benn xadis boo xam ne albuxaari ak muslim yëpp génn na ko mu ne sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma la dilla illa dillu bokk na si ñum tudd wa shaabun nashaa fi ibadatillah juróom-ñaar a ngi nii yàlla dina leen keral bés pénc bés bi nga xam ne ker du am lu dul keram ga juróom-ñaar ñooñu bokk nañu tudd ndaw loo xam ne daa màgg ci topp yàlla subhaanahu wa taala kon bokk na ci li ñu doon waajalee topp borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci li mu doon waajalee di leen soññu ci ñuy prépare seen bopp ci wàllu tabax seen wér-gi-yaram fonk seen yaram fonk sa wér-gi-yaram nag ci aspect yu wuute la fonk li nga xam ne moom mooy tàggat yaram tàggat yaram yi daggan te nga mën ko defee ci critères yi dagan loolu sharia da cee soññ ndaw ñi soññ leen ñu tàggat ci seeni ruux soññ leen ñu tàggat seeni xel soññ leen ñu tàggat seeni jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci xadis boo xam ne alxaakim moo ko génnee nee na ixtanim xamsan qabla xamsin na nga jéem a màng juróom balaa yeneen juróom di ñëw juróom yi jéem kaa màng jéem cee am ak ngañaay ixtanim ci lañ jëlee baatu alxanima mooy loo xam ne da nga kaa gañe ci ab xare jéemal a màng juróom yi balaa yeneen juróom di ñëw bokk na ci juróom yooyu nee na sa wér-gi-yaram balaa ngay feebar ndax dina dina ñëw kon ku mu ngi soññ mu ngi soññ jullit ñi rawatina ndaw ñi ci ñu fonk seen wér-gi-yaram ndax ñoom ñooy gën a faral di wér mag ñi jëmmi mag rek feebar la dañ naan màgget rek jëmmi màgget kese feebar la kon ndaw ñi ñooy faral di gën a wér moo tax mu gën leen a soññ ci ñi sàmm seen wér-gi-yaram sàmm sa wér-gu-yaram ci fonk tàggat yaram tàggat yaram yi am njëriñ yi nga xam ne dalay sàmmal ci wér-gu-yaram te dëppoog lislaam lislaam du ko tere am na yeneen texte yoo xam ne day sàmm day day soññ jullit ñi ci ñu fonk tàggat yaram fonk sa wér-gu-yaram ci bañ a jël dugal ci sa yaram loo xam ne dalay xañ wér gi yaram moo xam lu ñuy naan la moo xam lu ñuy lekk la moo xam lu ñuy fóon la moo xam lu ñuy déglu la ak yeneen ak yeneen moo tax sharia araamal yu bari bari na lekk yi ñuy lekk tey dagan na waaye baaxul ci wér-gu-yaram duñu la bu ko lekk waaye nag defal attention lépp loo xam ne day sànq sa wér-gu-yaram jullit da kaa war a moytu ah, mu boole ci tamit ci juróom yooyu mu ne wax wa shababaka qabla haramik na nga màng sa ndaw gi balaa ngay balaa ngay màgget fexeel sa ndaw gi nga liggéey ci loo xam ne soo màggetee doo ko mën a liggéey bari na loo xam ne tey ndaw mën na kaa def te mag mënu kaa def bokk na ci yu saa salaam daan préparé yi moy di len yeglo pour di len bayilo xel responsabilité biñ am ci kanamu borom bi subhanahu wa taala bés penc amna lo xamne bés penc ndaw lañ koy laaj ko xamne ne àggutoon nekkutoon àggutoon ci waxambaane ken du ko ko laaj responsabilité bu reuy la bo xamne bés penc di nga ak borom subhanahu wa taala mu laaj lako yow ndaw bi lol li kay tektale moy hadith muaz ci at tirmidhi radiyallahu anhuma muaz wa rahima al imam at tirmidhi nee la laa aw laa lan la am na riwaay wax lan la qadama abdin yowma alqiyaama xataa yusala an arbaci xisaal bokk na ci wa an shabaabihi fi ma ablaahu bés penc ni saa salaam nee na bu nit ñi dekkee kenn du séqi benn jéego boo jugee ci bàmmeel bi rek ba taxaw rek ci la laaj yi di tàmbale dañ la laaj ñeenti laaj bokk na ci laaj yooyu sa ndaw gi ci lan nga ko ràppal sa ndaw gi lan nga paase sa ndaw gi ba baa ngay màgget loolu dinañ la ko laaj des penc kon Isa salaam doon na bàyyiloo ndaw yi tontu boobu ñu waajal ko balaa ñu leen koy laaj des penc responsabilité ndaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci li mu leen doon waajalee di leen moytandikuloo tàbbi ci yu xaraam yi nga xam ne ndaw ñi dañ ciy faral di tàbbi en général ndaw yee ciy faral di tàbbi rawatina yi nga xam ne fitnaay jigéen la. moo tax Isaa sallam doon leen digal ñu takk soxna suñ ko mënee mu doon wax ne yaa machar alshabab man istataa minkum albaa falyatazawaj fa innahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj wa man lam yastatic fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa yow ndaw li yéen ndaw ñi ku ci mën a denc soxna na denc ku ko mën ci yaramam ba mën ba pare mën kaa yor bil ma'ruf waxuñ nga am alal gune gañi waye dal yow sa situation mën nga ka yor neena koku na tak soxna ndax loolu mo gën ci mom loolu dina sàmm gisam ba du top jigen ni rek di len xol loolu nak amna lu muy junj da ngay tak soxna so xamne dina neex xol xool day tax sa xel du nek ci xol ñeneen mais su fekke da nga tak soxna oh, oh, so nga xoolee rek so xol bi jeex bu ko defé do do do da ngay bo gisee leneen da ngay xol waaw moo tax Isa Salaam wax ne jigéen des dañuy danañ takk jigéen ci benn ci ñeent yi bokk na si mu tudd li jamaaliha kenn du la critiquer soo takkee soo lu tax nga takk ko moo ne nga ne yii dafa loolu kenn du la wax lu tax sharia terewu ko donte ne am na lu gën li ngay jiital ñun fasfar bi zaati diini bi dañoo jàpp ne diine kese ngay xool donte ne diine du kese mooy jiitu mooy priorité waaye toftal ci yeneen yi nag su si mënee toftalu toftal ci. li jamaaliha toftal ko ci waaw bu ko defee doo am soxlaay xool ñeneen ñi su amee li wa nasabiha toftal ko ci loolu tamit mën na la jëriñ rawatina réew mu mel ni Sénégal am na famille yoo xam ne boo ci amee soxna duñ la gaaw a songu laal duñ la gaaw a soxna loolu li nasabiha moo koy waral maaliha tamit bu fekkee am na ko te te defoo ko objectif baax na am na solo ah jàpp kii nee na jàppalante la te di nga si mën a am ay baax na daal benn waaye dafay wax ne man am nga góor ñi dañ naan cas social lay wër mu ne moom mooy nekk cas moom mooy cas social moom daa bëgg jigéen boo xam ne macha allah am na lu lu ne gàññ moom mu nekk cas social am waaw mu nekk cas social nga xam ne daal da koy da koy téyel buum gi rek ala kulli xaal agaddu lil basar bokk na ci li ñu ciy jàngee li ñu saa salaam bokk na ci li muy junj mooy bàyyil xel apparence bi tamit waaye du ji kenn du ko def كين دوكو ديف اوبجيكتيف واحسن للفرج سو امي سخنا مولا غنا مانا سام بو دو تابي تي بكار بي لولي ام نلو مي جونجو سخنا سو خام لو ني واخ حسن التباعد سخنا سو مانا سي لول موي تاخ nga مانا ريغلي وا سخنا سو مانا سي امنا سي سخنا ño xamne ma sha allah diine kenn du jam sen diine mm -hmm. waaye wax dëgg yàlla maara day taali waaw na am diine lool waaye nag na mën a sëy am na baat boo xam ne xam ngeen ko mooy maanaam na mën a sëy daal waaw mu ngi noonu loolu day tax axsanu lil far jig loolu day tax mu mën a mu mën a am sa xel du nekk ci leneen bëri na ñoo fii topp di leen tooñ yow yow ba nga amee waaw ba léegi 10 ans de mariage 15 ans de mariage lu tax ba léegi amoo ñaareel ah, yàlla moom moog yàlla moo xam li tax waaw da gis koo xam ne bërki démb la ko def rek la am soxna rek commencé wutaat beneen waaw mën naa am soxna sax moom moo amul xosnu tabax moo desee mën sëy waaw ñaari duñ benn am diine ak mën a sëy wute nañ uni saa sallam nag doon na soññ ci saxaaba yi ñu takk soxna ndax day jur loolu su fekkee soxna si mën na sëy nee na su ngeen ko mënul ku mënul bii bii nga war a def ñun nag mën defuñ bii defuñ bële su ngeen ko mënul na ngeen tax koo woor fa aleykum bis sawm nangeen ngeen taxoo woor ndax dina tax euh, tàngoor wi nekk seen yaram mën a mën a fay waaye yow takkoo soxna wóoroo fitna rek waaw takkoo soxna wóoroo dangay ngay tàbbi ci fitna rek soo takkul soxna moom fexeel di bari looy woor rawatina bërëb yi nga bu fekkee ne bërëb yi ngay fréquenté daa bari ay jigéen senegal jigéen ñi dañoo xaw a sàggan ci wàllu colko ci wàllu jëflante soo takkul soxna bari looy woor so soo mënee def siyamu daoud so waree lundi dog mardi <laughs> war mercredi dog jeudi ba ba ngay am soxna après ba me soxna nga wañu koor gi wala nga arrêté ko wa yunus alayhi wasallam dal dana préparer sahaba yi ci buntu boobu kon euh beurna ci buntu yi la doon préparé bokk na ci li tax ñuy waxtane tem bi moy ndaw moy capitalu rew mo meunti gis projet bo meunti gis sax lay wax ndaw moy capital bi xam nga kenn mënta taxawal business te amoo fonds projet boo gis ci àdduna bu réussir xamal ne capital ba fon ba ndaw yi la moo xam réew la moo xam diine la moo xam lu mënti doon ndaw yi ñoom ñoo koy porté faw ñu bokk ci pour mu réussir bu ci ndaw yi bokkul du mën a sori moo xam jamono ju mënti nekk wala place bu mënti nekk ci kaw suuf histoire loolu jàngal nañu ko borom santaala jukki na ci ay histoire yu bëree bëri ci alxuraan nettali ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit jàngal nañu ci lu baree baree bari ci ci siira yonent sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan tey misaal mi ci gën a fés mooy asxaabul kahfi ay ndaw lañ yoo xam ne rawale seen diine moo taxoon ñu génn dëkk ba borom santaala tudd leen ci alxuraan tagg leen ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda huda jàngal commencement suratul kahfi ba ba borom santaala fi muy paree ci ndaw ñooñu nga xam ne li mu wax su ñoom ñeenti histoire yi rot ci suratul kahf yeb li wax ci xale yoy mo upp li wax ci ci ñeneen so xolé ci siira yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi ñoo ñëk porter porté yunus sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam gannaaw khadija mi nga xamne mo ñëk njëkk yunus sallallahu alayhi wasallam bu mu jógee ci gharu hira kërëm la jëm kërëm la ñëk dem loolu day wone ne soxna su baax fa nekkoon mom la doon wax sank su fekkoon ne soxna su bari ay la su amé problème du jëm kërëm grand place ba lay dem wala solution mais ku am soxna su baax soo amee problème ku muy njëkk xalaat soxnaam moo tax ittabihu yéen ñi ñi jot am suñ bëggee am beneen ñu bàyyi xel ñu amagul célibataire yi amagul boroom 4-1 yi soxna su baax soo amee problème sa xel si moom lay njëkk dem ñu saa sallam moom jógee xaaru xiraa gis fa lu mu a gis këram la xalaat dem ci xadija zammiluuni zammiluuni dathiruuni dathiruuni xadija moo njëkk a tuub ba xadija tuubee ki njëkk a tuubaat ci nit ñi ci jullit ñi xale bu ndaw la muy kan muy kan ali ibnu abi taalib boobu ñaata at la am fukki at ali mënoon naa wax ne naa bàyyi ba mag ñi ba sam ba xam sam papa lu mu ciy wax ak loolu mais kii xam na yonent bi sallallahu alayhi këram la nekk xam na kii mooy kan du wax waxi caaxaan ali moo njëkk a tuub ba ci Abubakar tegee it ay ndaw ñoo si tegewaat bañ demee ba met quelques personnes yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbëggut di leen dajale ci këram ndax day attirer attention waa Quraysh ci kër kan lañ doon dajee al arqam ibnu ndaw la woon xale bu ndaw la woon kon ñoom ñoo njëkk a dugg ci lislaam ñoom ñoo njëkk a porté daawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk na ci li tax daawa bi réussir soo jàngee siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci ndaw ñi def kenn xamul dum toll ku ma mën a jox misaal ci ndawi saxaaba yi ak benn jalooreem naam Muaaz ibnu Jabal Abu Salama nee na Muaaz ibnu Jabal lu mu def ah Muaaz ibnu Jabal yonent saa sallam ba lislaam tasaarooyee ba yaatu ci Madina ahkaam yi wàcc atti yi wàcc azaka wàcc lislaam génn Madina dem ci yeneen i réew egg ba Yaman egg ba feneen ak feneen daf doon am ñu muy yónni pour ñu jàngal nit ñi seen diine Muaaz ibnu Jabal moom la yonent saa sallam yónni woon Yaman boobu ndaw la mu woo ko jox ko ay ndénkaane ne ko innaka taati qawman ahla kitaab ñi ngay dem si ñoom ay boroomi xam-xam lañ na nga def attention booy daawa koo xam ne am na xam-xam donte ne xam-xamam teguwul ci njub am na loo war a gànnaayoo mu yun saa salam jox koy instruction yoo xam ne ba mu demee yàlla subhanahu wa taala defal na ko tawfiq ak kan ci ndaw ñi ci ghazwatu badr ñan yan ndaw ñoo rey abu jël nga xam ne moo nekk firawnu hadihi l umma ñu saa salaam nee na naa xeet wi mooy abu jahl ñaari xale yi ndaw ñoo ko rey muy kan ak kan ñoom ñaar ñoom Muaaz lañ tudd ba xasootu Badr taxawee ñëw taxaw ci sàppe si njëkk si kenn ci saxaaba yi tawlootuma turam nee na ñu ngi dendeeg man ma bëgg leen a dàq maa ngi leen di xeelu di leen di leen dàq sama bët ndax bëgguma su xare bi tàngee man dama bëgg su xare bi tàngee ay póngal nekk samay wet suñu ma naree gaañ ñoom ñu défendre ma may ay booy mu ne mi ngi leen di xeelu di leen piis pour ñu arrière kenn ki ne ko kan mooy Abu Jahl Abu Jahl gars yi kan moo ci Abu Jahl di mu ne ko loo koy doyee mu ne digg naa da doon saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci màkk man moom laa soxla mu tourné côté gauche beneen booy bi wax ko laa même chose ba xeex bi tàmbalee ñoom Abu Jahl lañ doon wër saxaab yi boobu nee na tuuti lañ def rek ma gis Abu Jahl tëdd booy song ko jam ko reyate daggate ko ba mu dee ah, ah. daal di ñëw ci Yonent saa salaam ñoom ñaar ñëpp ñëw ku nekk naan maa rey Abu Jahl kii ne maa ko rey keneen ki ne maa ko rey Yonent saa salaam ne leen ndax da ngeen a fomp seen jaas yi ñu ne ñu ne ko déedéet mu ne leen ma xool ñu won ko seen jaas yi mu ne leen yéen ñaar ñëpp a ko rey te ay ndaw la ñu woon ñoo rey ki gënoon a yées ci Màkka ci ad-da'wa al-islamiyya fi al-fatra al-makkiyya misaal yooyu soo ko doon topp du jeex ñoom Bilal ñoom Mus'ab ibn Umayr nga xam ne mooy premier ambassadeur ci l'islam kii Yonent saa salaam njëkk ko yónni mu génn Màkka dem woote ji mu yónni ko Madina Musab ibnu Umayr la kon xale bu xale bu ndaw la woon ba mu koy yónni Musab ibnu Umayr bu ñu la nettalee ni mu deeyee ci gazwatu Uhud nga xam ne lim dundaat ba muy faatu xale bu ndaw la ba muy faatu xale bu ndaw la ak lim réalisé ci lislaam da ngay xam ne ndaw yàgg naa def ay jaloor dañuy wax Musab gazwatu Uhud ba mu jeexee li ñu rocc ci yaramam ci ay fett ëpp na 70 li ñu rocc ci yaramam bi ci ay fett ëpp na 70 te bokk na ci défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallam ba xasatu waxut jaxasoo yéeféer yi demi na jullit ñi Iblis yuuxu ne Muhammad dee na jullit ñu bëri daw yonent bi sallam yéeféer dañ kaa commencé song nag ba damm bëñam toj bopp bi ñenn ci saxaaba yi ñoo nekkoon ci wetam di ko défendre Musaab fett bu mu gis bu jëm ci yonent bi sallam rek mu jox ko ginnaawam fett bu mu gis mu jëm ci yonent bi sallam mu jox ko ginnaawam ba li dugg ci yaramam bi ci ay fett ëpp na 70 fett bés boobu te xale bu ndaw la woon kon ndawi sahaba yi yag nañu def ay jaloore ci l'islam ñu ngi may wax ne heure bi jege na dañuy taxaw foofu inshallah bo joxe joxee waxtu yoo pare dellusiwaat wat inshallah agale waxtaan wi di jup ci wax ji ci nimbalu borom bi subhanahu wa taala li ci deug yàlla ñu borom subhanahu wa taala jegal wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kon ñu ngi santaat borom bi subhanahu wa taala ci delsiwaat gi ñu delsiwaat ci jataay bi ci ñaareelu parti bi ci waxtaanee taxawaayu ban taxawaay wala ban place la ndaw am ci lislaam wax naa sànq ne ndaw moom mooy capital mooy rasu maal mooy capitalu projet boo mënti gis projet bu réussir ci àdduna rek ndaw ñaa ngi ca biir ndaw ñi mo xam ay góor lañ mo xam ay ay jigéen lañ waye projet bu réussir ci aduna rek ndaw ñang ci bir waxna ne lolu alxuraan jox nañ ci ay misal yu bari bokku na ci ashabul kaafi borom sant taala ba mu tàmbalee bi la ci la la tudd seen histoire ya yaatal ci lol am hasibta anna ashabal asxaabal war raqim kanu min ayatina ajaban ndax ñu yéme lañ sen mbir lu yéme la borom subhanahu wa taala ci seen jeexintalu histoire nee na innahum fitya mu ne ay ndaw lañ id awal fitya ay ndaw la leen tuddee bañ dawee génn dëkk ba ngir rawale seen diine naam haulaai qawmun attaxadu min dunihi aliha looloo tax ñu daw génn dëkk ba ngir rawale seen diine ndax am nañ xel am nañ yaqiin ne xam nañ xel ne bu ñu desee si dëkk ba Euh, seen bakkan dina ci xaj dinañ ñànk ñàkk seen diine ñàkk seen bakkan ñu ne xaaral ñu rawale benn bi muy rawale seen diine euh, kon mooy capitalu projet bu mënti doon ndaw ñi lislaam suñu réew yi ñun la yaakaar ci développé waaye lislaam ci ñun la basé wu ci ñun la misé wu ngir mën a sax waaye ngir mën a tasaaroo ndaw yi sunna ci ñun la teg bët ngir mën a sax ci Sénégal ak fu mënti doon ci àdduna waaye ngir mën a sunna bu tasaaroo tey ci Sénégal gannaaw yàlla ay boroomi xam-xam ak ay ndaw ñoom ñoo ko wesaare lii ngeen taxawal nii mag ñi borom xam-xam yu mag yi féetee mag mënuñ koo taxawal ndax seen jot mayu leen ko peut-être ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñi ngi ko gàddu ci seen loos ne mënuñ kaa féetee ndaw ñi ñoom ñoo ko taxawal pour ñu taxawal loolu nag pour ñu mën a formé wu ba lislaam wàccuwaay ak place bi mu ñu jox ñu mën kaa fees dell faaw ñu bàyyi xel mbir yi may bëgg a tudd mbir yu bari la waaye dinañ ci tudd lenn ndax temps bi yaatuwul te comme ni ngeen ko xamee du waxtaan woo xam ne kii waxtaan ndaka waajal ay fan euh, ay waxtu yu néew lañ ko ko wax mu dem kos-kosal tuuti rek ci lim xamoon daal di dajale Ah, incha allah ngeen yokk ci rek yéen tamit seeni contribution point yi faaw ñu bàyyi ko xel ngir mën a fees dell place bi ñu lislaam jagleel ndax lislaam place bi mu jox ndaw amul leneen lu ko jox te jox ko keneen ku dul ndaw tamit point bu njëkk bi mooy ndaw ñi faw ñu xam leen indi ci kaw suuf algaaya allati min ajliha xuliqa al insaan ndaw lu nekk faw muy teewlu loolu lan moo la indi ci kaw suuf lan moo tax borom bi subxanahu wa taala bind la ngir borom subxanahu wa taala daf laa bind nga ndax daf laa bind ngay fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan ndax da ngeen a foog ne dama leen indi si àdduna ngir ay fo bind la ngir fo seen environnement bi rek soo fi génnee soo ba ngoon da ngay gis ndaw yoo xam ne dañuy fo ba guddi jot ñu dem tëdd nelaw ndax ndaw ñi loolu leen indi ci kaw suuf soo génnee ci mbedd mi ci ci bitti da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëy di fo ba suba ba ngoon ñu dem tëdd nelaw moo xam fa mu dagan la moo xam fa mu xaraam la ndax fa moo lay indi ci kaw suuf pour nga fees dell place bi la sharia jox yow ndaw faaw nga xam lan moo lay indi ci kaw suuf li ñu indi ci kaw suuf mooy lan muy jaamu yàlla subhaanahu wa taala leneen lu ñu fiy def dañ ko war a def ngir dimbalikoo dimbandikoo loolu mu war a nekk moyen boo xam ne daf ñoo war a yombalal jaamu yàlla loolu mooy tax lépp looy def nga mën ci am ci yaawa nekk gi ngeen nekk ci université bi di jàng àdduna pour génn am ay poste yoo xam ne da nga am salaire yu baax loolu chaque jour da war a teew teewli ne loolu dama koy def ngir mën a objectif bu mag ba muy jaamu yàlla pour ma mën kaa def mu gën a yéwén damay jàng ngir nekk borom xam-xam pour mën a servir sama réew pour mu bokk ci réew yi gën a jëm kanam loolu ci jaamu yàlla la bokk pour peut-être su ma amee salaire bu baax di si jàppale mbokk yi ci seen séminaire yi loolu soo koy def cours boo fi nekk di jàng borom santaala di la ciy bindal tiyaab moo tax ibnu daan wax wax ju am solo ne ñi muus jullit bu muus effort bu muy def acte bu muy def ci kaw suuf yàlla da koy bindal tiyaaba jaamu yàlla lay doon ci moom ndax chaque jour day bàyyi xel yéeneem jullit bu muus buy football sax tey suñ match bi yi nga xam ne def nañ ko tey suba ak dé ak démb kan moo ci teewlu woon yéene boobu muy football damay football damay dem terrain pour peut-être su ma gisee mbokk jullit yi mën naa leen mën naa reetaan seen kanam ma am ci tiyaaba wala ma reetaan jëmmi reetaan googu ma am ci tiyaaba yoon saa saam nee na bul xeeb lenn lu baax donte ne muuñ la ci sa kanamu mbokk jullit walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq dem teere rek muuñ bi fexe ba gaa yi reetaan ci lu dagal kan moo fa dem waaw pour soññ soññ célibataire yi pour ñu takk soxna looloo la yóbbu woon ba ngay dem teere marié démb doo nañ célibataire yi kat neen du seen moroom soññi leen moo tax ba tey ba célibataire yi ñëwee tey 4 ñoom lañ ci biir lañ dóoraat marié yi 4 maanaam di dem di dem di defi sport jigéen ñi nekk si waañ bi tey di togg macha allah nee naa leen seen comité bi comité togg beeg organisation bi seen comité boobu moom maara détaillé ndax su doxul dara du dox kan moo si teewlu yéene boobu si yéen moom effort mii def ci waañ bi ak ni mu mu boole kook muuraay muuraay ba yaramam daj di sonn kan moo teewlu aspect jaamu yàlla subhanahu wa taala ci yéen ab jullit day bari day faral di bàyyi xel loolu moo tax buy nelaw sax dañ koy bindal tiyaaba fi teewlu loolu damay teel a tëdd 21 heures pour ma mën a julli ji fajar wala pour ma yeewu 4 heures mën a am ñaari raka balaa ñuy ba baa ngay yeewu dañ lay bindal tiyaaba moo tax Abdullah ibn Mas'ud doon wax suma ma ne moom la wala Abdullah ibn Abbas inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati nee na li taxawee di julli guddi di ci wut tiyaaba noonu laay nelawee di ci wut di ci wut tiyaaba ndax yéene ba moo tax jullit lépp lu muy def rek dafa war a bàyyi xel yéenéem kon faaw ñu bàyyi xel li ñu indi ci kaw suuf moo lépp looy def ci àdduna moo xam njàngum àdduna la moo xam leneen boo dee ba am liggéey lu mënti doon del teewlu li tax nga ñëw ci kaw suuf mooy jaamu borom subhanahu wa taala borom subhanahu wa taala nee wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun loolu du teewee teewlu doo mës a doo mën mukk doo mës a mukk yow ndaw place bi nga xam ne la la jox te mu nekk place bu réy réy wa maa umiru illa li yacbudu allah muxlisina lahu diina xunafa ba aaya ba jeex wa man yabtagi geyra alislaami diinan falan yuqbala minhu ba aaya ba jeex aay wax ci ixlaas ak di fàtte fàttali nit ki li ko indi ci kaw suuf bari faaw ñuy teewlu loolu loolu suñ ko teewluwut sax nag yeneen yi may bëgg a tudd du am njëriñ ndax nit ki su demee ba am yas su demee ba amatul objectif dundam amatul benn objectif day dund nii rek day xëy ba ngoon jot mu tëdd nelaw mu xëyaat ba ngoon jot mu tëdd nelaw ba baa muy dee kooku dootu dootu réaliser dara ci kaw suuf mais bu fekkee nit ki mi ngi teewlu ne li koy indi ci kaw suuf mooy jaamu yàlla lépp lu muy def dina teewlu as boobu ba lépp lu def mu jaamu ci yàlla subhaanahu wa taala loo tax ñu saa salaam doon fàttali saxaaba yi ne leen dem ba leen di wax ne dank bi ngay sexal sa soxna sax jaamu yàlla la tiyaaba la fekkee yaa ngi bàyyi xel yéene bi te loolu farata la farata la boo xam ne da nga kaa war a def xam nga di joxe dépense ak jamono ji nu méttee maa ngi liir benn statut benn benn waay bu statut ne jigéen du dër la bëgg soxna xam ne bu xëyee balaa mu koy laaj dépense bu nekk bu nekkee di dër dërlu balaa muy pare mu xëy ndax dëkk bi moo dëgër am benn jigéen bu répliqué def statut mu ne moom it daa bëgg jëkkër du dër nga xam ne su xëyee balaa mu koy wax lii laa bëgg a toog lii laa bëgg añee balaa muy wax palaa bi mu bëgg a añee mu dem marché lu mu fa fekk jënd ndax dëkk bi métti na ci gi ñuy joxe dépense ba yenn plat yi joxe ko dépense léegi yomb jigéen yi dëkk bi métti na si ñoom ba li ñu leen di jox peut-être doyul ba duñ xam lu ñu ndugg xam nga joxe dépense su 2000 ba pare di commandé yenn plat yi wax yàlla loolu yeruwut maanaa moo tax ki wax ne daa bëgg jëkkër ji dër ba balaa muy wax plat bi mu dem marché bu ko neexee bu ko defee mu ndugg lu ko neex mooy yey wax loolu jamono ci sa salam moo tax mu ne li ngay dépense bi ngay jox sa waa kër loolu soo teewloo yéene ne li ñuy responsabilité bu la yàlla jox la teg ko sa loos pour nga sàmm leen kullukum raain wa kullukum masun an raiyati ngay teewlu loolu da ngay am tiyaaba ci dépense bi doonte ne farata la soxna si togg gi muy togg farata la ci moom ci kër gi da ci am ba donte ne li muy def moom moo ko war a def wa hakada kon nañuy teewlu li tax borom bi subhanahu wa taala bind ñu indi ñu kaw suuf yéen yéen yéen nit ak jinne moom ngeen jaam ma moo tax ma indi leen ci kow suuf ñaareelu point bi nga xam ne ndaw ñi war nañ ko bàyyi xel ngir mën a place boobu lislaam jagleel leen mooy chaque jour ñuy bàyyi xel danger yi nga xam ne mi ngi wër lislaam rawatina ndaw ñi point bi kese doyen na conférence doyen na waxtaan wu xóot wu yàgg yoo xam ne deesu ko mën a jeexal li nga xam ne tey moom moo wër lislaam lislaam tey bu doon ab rëbb la nga ne nga ne animal yi rëbb yëpp ñu ngi ko wër tey bu doon lislaam nga ne ab xar la gaynde yaa ngi ko wër bukki yi segg yi lépp luy fàdd ab rëbb rek bu doon lislaam rëbb la ñoo ngi ko wër lépp luy danger tey lislaam mi ngi nekk seen digg mi ngi nekk ci anam boo xam ne dafa faible lislaam dafa ñàkk doole instant mu ñu ngi toll ci saa waxoon ne wa sa yaudu gariban dinañ waat lislaam ba muy commencé dafa tumuranke dina delluwaat tumuranke texe ñeel na ñuy tumuranke jamono jooju ànd ak lislaam ñu saa salaam nee na bés dina ñëw ki jàpp ci diineem day mel ne daa jàpp ci xalu safara l'islam yëpp nag laa wax waaye rawatina ñiy jéem a dund la yonent sallallahu nekkoon muy as-salafiyya ñiy jéem a dund li yonent sallallahu alayhi jàngale woon nekkoon ci moom ak ay saxaabaam ñoo gën a sonn ñëpp ndax ñooñu ñu dul dañ leen di sonal jullit ñi seen biir te ak ñoom julluwaay dañ leen di sonal ñoom ñoo gën a tumurànke loolu yonent sallallahu alayhi nee na bés dina ñëw nit ki nekk ab sàmm jël ay xaram ak ay bëyam ak ay nagam jëm ci àll ba di naan ci meew mi di lekk ci yàpp yu ba dee fekk ko fa mu dee mooy gën foofu mu jaxasoog nit ñi ndax dañuy dañuy fab bi diineem mu ne àdduna dina tolli foofu fitnaay diine yi dañuy bëri ba nga dem féete àll ba di sàmm am loo lekk ak loo naan beneen xadis sax ci xadi xadisu xudayfa nga dem toog ci benn taatu garab di xaar dee àdduna dina tolli ji foofu chaque jour julli ñi dañuy gën a sonn ñaari tumuranke yi nag duñ benn tumuranke gu njëkk gi tumuranke nombre la woon nit ñi jullit ñi bari woon waaye dëgëroon nañ ci wàllu pas-pas ñaareelu tumuranke gi nag du tumuranke nombre de moo tax saa sallam moom ko waxee saxaaba yi ne ko kenn saxaaba yi ne ko ndax jamono jooju dañuy néew mu ne ko déedéet da ngeen di bëri ba jéggi dayoo waaye du ngeen am benn njariñ ndax tumuranke ak pas-pas la jullit ñi si poppam ñooy xeex jullit ñi bu ñu jëloon misaal ci Sénégal dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ ñan ñooy xeex lislaam ji ñu dul jullit ñi télé ñuy xeexee lislaam fii jullit ñee ko moom Sénégal télé yi privé yi fi nekk yépp ay jullit a ko foofu la ñuy sabotee l'islam fa la ñuy sabotee sha'airul islam fa la ñuy xeexee jullit ñi te kenn du jàmbat waaw lépp luy xeex l'islam ñu ngi ko fay jàllale te duñ fa jàllale lenn loo xam ne luy jëriñ diine ji la maa ngi dégg rek ci émission bi jàll démb ci benn télé te Oustaz Omar Diallo nekkoon fa ak beneen mbokk lu bëri ci émission yi Atoumane Samb dégg naa lu bëri ci émission bi dañ kaa dagg dañ koo enregistré defuñ ko direct am na xam ne soo ko defee direct da lay rëcc dañ ko enregistré lu bëri li nga xam ne arrangé wu leen dañ kaa dagg bëgguñ mu jàll yenn dëgg yi yenn dëgg yi duñ bëgg mu jàll moo tax ndaw ñi faaw ñu teewlu danger yi nga xam ne moo wër lislaam rawatina sunna am na ci xam ne ay danger pas-pas la franc-maçonnerie mi ngi fi tasaaroo ñuy financé képp koo xam ne pare nga pour dugg ci ñoom gis ngeen góor jigéen yi LGBT yi gis ngeen lu mu leen jaral léegi bu njëkk dañ doon nëbbatu léegi fës nañ fu nekk ñooy financé suñu gouvernement yi wala di financé ñu am doole yi moo tax jàmmarloog ñoom du yomb kon ñi nga xam ne dañuy yàq sa pas-pas ñu ngi fi fees dell yi nga xam ne ci jikko yi lañ aju du xaaj du jeex xool leen suñ télé yi li fiy jàll suba ba ngoon xooleen leen série yi suñ arrière suñu arrière ñaar fukki at ci ginnaaw série yi ñu daan faral di teg ay tubaab ñoo koy joué ndax suñ boobu population bi yàqooguñ jigéen ñi yàqooguñ dañ doon indi ay série brésilien ay série argentin ay série mexicain ay comme ay Luz Clarita xale ndaw yi xam naa duñu xam boobu célibataires yi ñu si bëri duñ xam boobu ndax ay xale lañ ñoom Marimar ñoom Rosa ñoom Milagro mademoiselle xaw ma boobu ay Tour de Babel ndax boobu suñ population bi ñoo joué yu bon yooyu léegi ñu ñu koy indi ñu koy seetaan di ko seetaan di ko seetaan di ko seetaan ba dàq leen ko di leen entraîner ñu leen di entraîner di leen entraîner ba dàq leen ko nag léegi ndax ni ki nga xam ne yéen a bokk benn nationalité bokk tur mu tudd Fatima wala mu tudd Muhammad nekk sénégalais di làkk langue bi ngay làkk kooku moo gën a gaaw ci yàq la fuuf ci nga xam ne tubaab la bu ñu daan seetaan série tubaab yi ba yenn séquence yi ñëw dañuy dàq xale yi pour ñu génn. ah dañaan lii tubaab la rek tubaab yi ñoo koy def ñun suñu population ko mës a def xam nga li tax tubaab sa ñu leen di ooyee tubaab suñu maam yi ñoo leen tuddee ñu ngi ko jëlee ci baatu alxuraan boobu di lan tabaab tabaab mooy alku wa maa kaydu alkaafirina illa fii tabaab suñ maam yi baat boobu lañ tuddee ñu alku ñooñu tabaab mooy alku ndax ay nit ñu alku lañu woon kenn ci magi Sénégal yi dafa dañ dañ ko waxoon ne mu ne alxuraan lépp ci ñu ne ko France fan la nekk ci alxuraan mu ne sa urikum daaral faasixiin sa urikum daaral faasixiin daarul faasixiin France daarul faasixiin aw min diyaaril faasixiin kon bañ ñu entraîné suñu jeunesse bi bañ maîtriser loolu li ñuy joué léegi moo raw fuuf li tubaab yi di joué te ab Mouhamad moo koy joué ab Ibrahim ab Moussa ab Fatima. suñ demaatee dix an quinze ans ci ginnaaw xool leen série bu boobaa fu muy toll suñ demee ba deux mille trente deux mille trente cinq ngeen xool yan façon série la ñuy joué dinañ def lu raw lu tubaab di def. moo tax danger yooyu faw ndaw ñi teewlu ko moytu ko te jëm cee musal seeni ñoñ phénomène bi am bu yàggul li xewoon li li ñuy tuddee li xewoon Dubaay yàgg na faa xew mi ngi fay xew te du du jeex. jaar nañ dëkk wu mel noonu xam nañ li fa xew du julli la boo xam ne julli du julli du jot ba nga dégg nodd waaw déet rawatina ci ville bi seen gracier yooyu fu mu nekk burju xalifa côté yooyu doo fa dégg nodd bu julli jotee xanaa ci yeneen quartier yi nga xam ne peut-être tubaab yi duñu fa agsi mais fi tubaab yi di agsi moom julli du jot ba nga dégg nodd foofu da ngay fàtte ne sax julli jot na mooy dëkk bi ëpp ñuy jaay seen bopp ci àdduna instant yi te dëkk julli la dëkk naari moo tax lii nii peut-être ñi xamul li xew Dubaay moom la jaaxal mooy Dubaay euh, loolu noonu daal. mooy yooyu dafa am duus yu ñuy toxal nit ki nga xam ne daa mujj soppaliku duus nit dem ba soppaliku. duus imagine ngeen. fi ki fi kooku egg ci façade. maanaam maanaam li ñu naan almasiyatu taddu uxtaha bàkkaar day oo moroomu bàkkaar da ngay def bakkar bu ndaw di ko minimiser di ko minimiser moo tax Yusa Salam yàlla ba muy tere njaaloo dafa tere fi muy déparé muy xool xool bi la tere ndax xool bi bu fekkee mosoo xool nga xool ba mu yàgg nga commencé de xool bu njëkk bi day rëy yow ku tàmm Abdul Basar ba yenn saa ba bés mu jàkkaarloo benn affaire loolu day rëy si moom métti si xolam mais day dem raddul basar moom dafa mel ni bokkatul si diine ji moom raddul basar pourtant aaya baa ñu sóoratul nuur ba léegi de كان نسخوكو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم مي دا فا بن ليك بوكوتول سي دينا سي نده دا فا ديم با ليغي دا فا ريس غوم لا بو خامني ريسنا اموتول كين سي نون كو خامني داي غيس عورا ولا مو خول جيجين سي انا بوم غور دو خولي دي دي ام لوكو ميتي سي خولام ndax res na da ngay da ngay dem ci benen sàjj sa xeef waxuma gëmmu de radul basar du gëmmu ñu bëri ñu ñu di ko firee gëmmu na nga jàkkaarloo nit ki di ko xool te xooloo ko sa bët yaa ngi jàkk mais yow feneen ngay xool naam ñun saa borom santaale na qul lil muminina yaxuddu min absarihim jigéen ñi tamit radul basar wa qul lil muminaati yaxdudna min absarihim ndax ni góor di fitnaawoo ci jigéen noonu la jigéen di fitnaawoo ci ci góor bu loolu jàllee dañuy toxu ci beneen étape mooy di bànneexu ci seeni wax te loolu it aay baa ngi ci alquran ba léegi ñu koy tere in ittaqaytunna fala taxda'na bil qawl fa yatma alladi fi qalbihi marab ñàkk xaddul basar moo waral marab gi da ngay weesu foofu egg ci xalwa wéet te ñaar ñu wéet seetaane ñettee leen laa yaxluwanna rajulun bi imraatin illa maa di mahram ah yeneen ak yeneen mën na faa mën na faa xew moo tax bàkkaar day indi beneen bàkkaar so defé bakkar te tuubo ko day indi ba ca top ba top ci mom deugere ba ca top da ngay dem ba egg fo xamné bàyyi may ñoo tane moo tax moom lu waxon inhum illa kal an'ami bal hum dañuy dem ba nek ay bàyyi ma wala sax bàyyi may tane leen ñoo gëna sànku bàyyi may moo tax bu déwé ba nit tollu ci façade xaalis daral ko mu nek douche gemin bi moy moy moy ki kii bi loolu maara day tane waaw allah musta'an kon nañ bàyyi xel fitna yi wër suñu diine ji ñoom tubaab yi ñoom noonu lislaam yi xam nañ ne suñ yàqee jigéen ñi rek góor ñi góor ñi yàqu su jigéen ñi yàqoo rek góor ñi pour ñu fegu du yomb moo tax kenn si ñoom doon wax ne yajibu alayna an naksaba al mar'a fa ayu yawmin maddat ilayna yadaha fuzna bil haram wa tabaddada jayshu al muslimina lid din nee na nañ nañ investir ci jigéenu jullit ñi heure bu ñu jigéenu jullit ñi tàllalee seen loxo maanaam heure bu ñu yàqee jigéenu jullit ñi rek jeex na gañe nañ guerre bi heure bu ñu fexee ba jigéenu jullit ñi yàqu gañe nañ ger bi bi gañe nañ ko ndax fexe nañ ba yàq jigéenu jullit ñi xool leen tey boo jugee woon pari wàcc Dakar ni jigéeni Paris yi di solo noonu la jigéeni Dakar amuñ différence ci wàllu col body bi ñuy jaay Paris ñu ngi koy jaay fii Dakar même prix bi amuñ luñ lekk waaye am na lu ñu jëndee body yi bon yooyu du ñu am différence ci wàllu colka du ñu am différence ci seen seen wàllu karaw du ñu am différence ci seen wàllu waxin Sénégal moom surtout nitu Dakar yi jàpp nañ ne pour ñu xam ne intellectuel nga faw ngay wax ni tubaab yi di waxee di rouler air yi ñoom jàpp nañ ne loolu mooy intellectuel bala maa dee nag. loolu moo xam naa arabisant la arabisant bu ñàkk fayda jàng lu làkk bi gën ci làkk yi nga xam ne ci la alxuraan wàcc nga nekk ak ñoom di complexe vraiment de ma ma gis arabisant bu ñàkk fayda complexe ci loolu suñu waxee seen yooyu noonu seen làkk boobu luxatul kuffaar yow nga wax làkk bi nga xam ne ci la alxuraan wàcc làkkal arab ñoom ñëppay noppi ndax ñoom yow xam nga li ñuy wax te ñoom duñ mës a xam li ngay wax كون كومبلكس باخول كان si ñoom day wax ne ka'sun wa ghaaniya tafalaani fi taxtimi al ummati al muhammadiya akthar mimma yafaluhu alfu midfa nee na benn kaasu sàngara boo fexee تي mu dugg ci jigéen ci nga fexe ba jigen ñi julit ñi am ben way kat bo xam day taxaw sen kanam wuññeeku wuññi ay awram di way sen kanam neena na limi def ci effet ci yàqu julit ñi ay bombu du ko def mune julit ñi ay bombu mënu leena jexal ndax dinañ ko di nekk ay jullit moom mënoo leen a bombardé bañ jeex waaye soo fexee ba ñu commencé naan sàngara nga fexe ba jigéen ñi wuññee ko taxaw seen kanam di waye ko fecc résultat yi ngay am moom moo gën a bëri fuuf mu ne kon nañ fexe ci nuural leen ci wàllu bànneexu jigéen loolu réussir nañ ko wax yi ñu ci wax bari na yoo xam ne soo demee ci seen téere yi nga xam ne seen livre yi nga xam ne ci lañ tegoon stratégie bi ñuy def ba yàq jullit ñi mi ngi seen livre yooyu te wax dëgg yàlla réussir nañ ko kon ndaw ñi faw ñu xam danger yi leen wër ci seen wàllu pas-pas ci seen wàllu jaamu yàlla ak ci seen wàllu jikko rawatina jigéen ñi jigéen ñi buñ góorgóorloo ba fegu rek góor ñi pour ñu yàqu du yomb même suñu bëggee yàqu yàqu di leen yomb soo joxee misaal fu mel ne Arabie Saoudite donte nag ñu ngi jaar yoonu yàqu ñu ngi jaar jamono ji ak njiit yi ñu am ci yoonu yàqu yàlla leen yàlla subhaanahu wa taala musal góor gu fa nekk ay jamono même soo bëggee yàqu yi doo ko mën ndax jigéen ñi ñoo tënku dëkk boo xam ne masalan madinatul a mën nga faa nekk juróom-ñeenti weer soo gisee kanamu jigéen ci tele nga ko gis wala feneen mais doo ko gis jaaraan moom nga fa nekk 9 mois di génn di dox say soxla soo gisee kanamu jigéen xanaa jidda nga dem jidda wala nga xool ko ci sa téléphone wala nga seetaan télé Sénégal yi. foofu góor dina fa dina yomb mu yàqoo déedéet ndax jigéen ñi ñoom ñoo tënku moo tax jigéen ñi suñ góorgóorloo ci tënku rek góor ñi yàq leen du yomb point boobu wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee point bu yaatu la boo xam ne doyoon na waxtaan kon góor ñi nañ ndaw ñi nañ bàyyi xel pour ñu fees place bi leen lislaam leen faw ñu bàyyi xel danger yi leen wër te ñun bàyyiwuñ ko xel ci côté boobu tubaab yi fi ñuy jaar pour yàq suñ pas-pas pour yàq suñuy jikko pour sore nañu suñ diine bëri na télé yaa fi ku sa kër am télé rawatina mu am chaîne yi nga xam ne dangay gis kër goo xam ne day am plus de 200 chaînes boo abonné kanaan li ngay am ci ay chaîne kenn xamul nu mu toll. bu dee ci réseau yi fii yi ñuy euh, xëcc yi da ngay am chaîne yu bëri nga xëy liggéey soxna si xëy liggéey ngeen bàyyi xale yu jigéen ñu seetaan chaîne yi ñu seetaan télé yi seetaan série sénégalais yi nga xam ne maa day taal yéen a ma gën a xam su weesoo télé yi téléphone yi ñaata tey la téléphone yi yàq ci. ci ndaw ñi rawatina su amee internet wa ma adraka internet moom ngay wéet ak ci néeg bi mën na xam li xew ci àdduna bi yépp ci sa benn baaraam bii téléphone yi xam nga benn baaraam la soxla benn baaraam kese la soxla ci internet nga mën a wér ci néeg bi génn léegi ci jàkka ji mel ni malaaka ci gëm yàlla dugg ci néeg bi dugg ci yenn yenn mbir yi ñu am ñu la proposé rek benn lien nga dugg ci booy génn mel ni iblis ci bon ak seetaan lu bon bëri na ay wasaayil ay moyens yoo xam ne ci lañ sànkee ndaw ñi léegi te yëguñ ko ki ci gën a ki ci ki tane ci ñooñu te te tanewul moo tax dañ naan fu tane am moom wér amagu fa ana diw nga ne mi ngi tane kooku wéragul mooy ki nga xam ne moom peut-être du dugg ci site yu site yi nga xam ne day seetaan lu xaraam de waaye temps mi ngi yàqu nga xam day yàq temps ci téléphone ci lu amul njëriñ soo duggee lu mel ni Facebook Facebook moom xam nga da ngay rek fees moom da ngay yéege rek mu yéeg soo mooy di nga ci def deux heures temps xamoo ne yaa ngi yéege rek xam nga bu dee whatsapp la boo duggee ci groupe sax ba message yi jeex xam nga boo dégloo ba message yi jeex da nga génn groupe boobu xanaa nga dem dugg beneen groupe mais Facebook du jeex da nga yéegal rek mu yéeg léegi mën nga si def fukki waxtu ak juróom doo yëg ne yow yaa ngi yéegal mën naa am xooloo yu xaraam waaye sa temps yàqu na te ak cher wax nañ sànq ne. sa ndaw gi dinañ la laaj ci loo ko ràbbal ràppal bu ko defee baaraam bi doon yéegal moom naan def naa 200000 waxtu ci Facebook ndax xam nga ne dañuy wax yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum dañuy seede baaraam bi doon yéegal day wax ñaata heure ku nekk suñu na toog xisaab ñaata heure nga yéegalagum ci ci ana bi ci loo xam ne jariñu la dara ki kii jariñu ci réseaux sociaux yi daal mooy ki nga xam ne bu ko jëlee dina dugg fu mel ni dégg diine di yéegal di gis borom xam-xam ñu koy jariñ gis Mouhamad Ahmad loo gis Mor Kébé gis Omar Diallo nga xam ne njariñ lay jëlee ci yéegal googu waaw wala dugg ci sit yi nga xam ne nit ñaa ngi ciy jariñu bëri na yàlla yàlla sàmm ñi koy taxawee kon euh, moye yi nga xam ne ñu ngi ñu ci sànq bëri na te ñun duñ ko bàyyi xel temps bi ci yàqu rawatina seetaan lu xaraam raddul basar moom waxuma la jëxaran ci ci réseaux sociaux yi moom surtout ma TikTok amul ban njariñ la am application boobu ba njariñ la am a ah, xaw ma ko ndax man dama kaa mësta am moo tax mais damaa gis ñi ko am ay vidéo lañ ci poste yoo xam ne en général day ànd ak musique da ngay déglu musique min haythu la tash'ur nañ bàyyi xel mooy yooyu nga xam ne ñu ngi ciy sànq suñu waxtu mbokk yi te yëguñ ko bokk na ci point yi nga xam ne ndaw ñi war nañ ko bàyyi xel pour fees place boobu lislaam bàyyi leen mooy ñu am ay royukaay yu rafet ndaw yi léegi ñan ñooy seen royukaay ay woykat ay fecckat ndeysaan ay xale yu ndaw lañ dajale woon di leen laaj ku nekk loo bëgg a doon soo màggee benn xale bi ne mbër laa bëgg a doon kooku moom mbëri ñooy royukaayam te ndeysaan mag ñi xam nga la lañ doon wax jigéen lu mu bon bon mën a jur mbër maanaam mbër moom mooy mooy li yées ñoom loolu lañ daan wax mag ñu baax mag ñu njëkk na jigéen lu mu bon bon mën a jur mbër léegi nag Sénégal moom jur mbër mooy ni première option moom wala jur ab professionnel ci football mooy première option mooy bi gën benn xale ñu ne koy loo bëgg a doon mu ne apprenti car rapide loolu bëgg a doon xam nga kooku ñooñu yëm nañu am na si koo xam ne xam naa Fall la sant amaana Birahim Fall ñu ne ko loo bëgg doon mu ne gerte caaf su màggee gerte caaf la bëgg doon ma ne ko kon ñu toroxal la rek yéey la ba nga mokk am na ci xale boo xam ne li mu wax mënuma cee ñemewu ñemewuma cee jaaraat wallaahi dañ ne ko loo bëgg a doon mu ne joué kat nàngam joué katu nàngam xale bu ndaw bu amagul juróom-ñaari at subhaanallah foo laa doon wax léegi ci réseaux sociaux yi ak kooku nu mu def ba xam loolu nu mu def ba xam loolu xam nga xale bu demee ba ñenn yenn xeetu nit ñi ci population bi di ko yéem loolu musiba kon ndaw ñi dañ xoolaat seeni royukaay ndax yow ñi nga jàppee royukaay ñoom ñooy def effet ci yow te yow say doom yaay seen royukaay moo tax arab yi doon wax ne kullu fatatin bi abiha mujaba xale ay wayjuram dañ koy yéem moo tax lu ko jaaxal rek wayjuram lay woo xale bu tiitee papaam lay oo wala yaayam ndax jàpp nañ ne jàpp nañ mooy référence bi gën a mat ci kaw suuf kon yow mii woy jur da xool ñan ñooy say référence ñan ñooy say roykaay ñan nga war a roy roykaay bi nga xam ne moom lañu yàlla tànnal te du mësa a ràpp muy kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kooku nag mënoo kaa roy te ngoo jaar jaaram jàngoo siiraam xamoo lan nan la meloon ci mel ci waxin nan la meloon ci jëfin nan la doon soloo xam lan moo nekkoon melokaanu Musaa salaam doo ko mën a roy lu tax mënuñ kaa roy mooy xamuñ ko Musaa salaam xamuñ ci moom lu bëri wax naa ko fii keroog ne sunna dañ koy wax rek te duñ ko jàng soo ko jàngut doo ko mën a jëfee te sunna mooy lépp lu ñuy la yontu sallallahu alayhi wasallam moo xam pas-pas la wala mu nekk wax wala mu nekk jëf wala mu nekk luñ ko sax lu mu saxal wala sax loo xam ne melokaanam la boo xam ne bu ko yàlla bindee la wala loo xam ne jikko la loolu yëpp sunna la ñu saa salaam suñ jàngut sunna duñ ko mën appliquer te moom mooy royukaay bu mag bi ak saxaaba yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaawam ba yàlla subhanahu taala tagg leen ne radiyallahu anhum gërëm na leen ñoom ñëpp ne wa kullan waada allahu xusna ñoom ñëpp àjjana lañu lañ jëm asalafu saaleh ak képp ku jaar ci seen yoon ci rafetal ba baa bés penc am nañ ay royukaay yuy dund ñoo xam ne fi saxaaba yi tegoon seen i tànk lañ fa teg ñoo wasaara sunna ba mën a egg fu bëri tey ci Sénégal dañ leen jox cër te roy ci ñoom lépp loo xam ne lu sax la ku ci am njuumte ñu romb ñu ñu esquiver njuumte bi waaye du tax nga ñàkkee teggeen boroom xam-xam ku dul yoon saa salaam matul mën naa am njuumte mais njuumte googu da soo ko dugaloon ci ay géeju xasanaatam mu mu nuuru doo ko doo ko gis kon faw ñu xool suñuy royukaay yoon saa salaam moo ci jiitu ak képp ku jaar ci yoonam ci rafetal ñu ngi may dund ne temps bi des na 3 minutes. Euh, kon bokk na ci point yi ñu war a bàyyi xel pour taxaw taxawaay boobu taxawaay bi nga xam ne moom la ñu lislaam mooy ñun ñëpp ñu nekk ay duaat liñ jot a xam ci diine faaw ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk pour wesaare ko wesaare diine nag dafa am ay asaalib ay méthodes yu ñu koy defee du benn méthode rek bul gis ne. Abdoulou réussir na méthode bii nii seen koñ man méthode boobu laay jël mën naa am waa koñ ñoom Abdoulou boo ko ñëw seen waa koñ kii réussir na méthode bii kii dafa sadik moom day jaar si digg bi mu réussir seen dëkk yow nga dem dëkk seen dëkk nga xam ne ñu sadik ñoo fa nekk nga bëgg jaar si digg bi buñ la reyee dañ lay fàtte rek rawatina boo nekkee célibataire dañ lay fàtte ndax célibataire bu dee moom moog liir bu dellu ñoo yem amuñ différence célibataire bu faatu moog liir bu dellu ñoo yem kon da def attention. macha kon méthode yi méthode yu wuute la. méthode bi mën naa am njariñ ci at ci ci ci quartier bii te du am njariñ ci quartier bële kii mën na jëfandikoo méthode bi ci këram te yow soo ko jëfandikoo sa kër du jariñ comme li benn waay defoon benn waay dafa wax soxnaam ne ko yow laa gën a bëgg si jigéen ñëpp ba des benn jigéen kooku soxnaam dafa dal bëriwul xëdal bokk ci jigéen ñi nga xam ne dañoo fiir ba jéggi dayoo ba mënuñ ko contrôler mu ko kan la mu ko sama yaay ñaari mbëggeel duñ ben, amul comparaison côté bobu ni ngay bëggee sa yaay bokkut ak ni ngay bëggee moo tax soxna su ñëw naan la yaak sa yaay maag sa yaay ko gëna bëgg neeku topal fele ndax ñaari mbëggeel duñ ben ñaari kën du len mbëggeel nga bëgg sa yaay ak gi nga bëgg sa soxna ak gi nga bëgg sa doom bu jigen duñ ben mënu leen comparer comme nga naan pom mo dakh banana loolu wax jaxam pom ak banana kën du len comparer bokkuñ tafka xanaa nga ne ku pomme bu ruus ak pomme bu feer sax léegi kooku def loolu mu jàll kër ga neex benn xaritam dem bëgg koo appliquer moom it si këram naan ndaw si yow jigéen ñëpp yow laa si gën a bëgg ba mu des ba mu ne ba muy des ba muy toll ci ba mu des la cunwaar gi dugg ci diggu bopp bi bolog bolog la yeewoo ñu koy opéré def nañ deux heures temps pour génne cunwaar gi ci digg bopp bi ndax exception bi mu ko def ba mu des loolu da lay wan ne daawa. dafa may asaalib yu wuute liy jariñ kii jariñut kële mbokk yi ndaw yi dañoo war a tasaare lislaam li tasaare lislaam dafa am ay asaalib ay ay méthodes yu wuute loolu pour nga xam ko nag faw nga jàng ba am xam-xam jàng it lu ñu tuddee méthodes yi ñuy daawa lu ñu tuddee asaalibu daawa fànn la bu ñuy jàng ci faculté kulliyatu daawa boo demee da nga koy jàng asaalibu daawa dafa am ay yoon am na ñoo xam ne noppi rek mën na leen daawa bañ a wax ci ay jëf yi kese am ñoo xam ne daa laaj nga wax ñoo xamne da laaj nga taral motax daaw bi dafa soxla ñen ñoo xamne ne dañuy xolli góom bi waaye ñëpp duñu ay xollikatu góom da ngay gis yenn saa ñu ne diw mom dafa sedd torop man dal diw moma gëna neex mom ndax mooy xolli góom bi dañoo soxla ñuy xolli góom bi ak ñi ci def alcool mu mu gëna saf ak ñoo xamne ne ñoo koy raay di ko ëf pour mu sedd ñoo ñëpp lañ soxla daaw bi ñoo ñëpp la soxla ku ci nekk ak ñi nga mëna jariñ amna ñoo xamne li mo leen di jariñ amna ñoo xamne loolee moom moo leen di jariñ fi may tëjee mooy li ci ëpp solo nag ci daawa mooy li ngay wootee nga nga nekk ci ñi gën a bari si ñun sama genre gi mën nañoo leeral li lool waaye nekkuñ ci duñ jëfee li ñuy woote te loolu yàlla du def barke ci sa daaw a santaane na naa atamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax ba pare fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaab afala taaqiluun xanaa amu leen amu leen xel yaa ayuha alladina amanu li ma taquluuna maa laa tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu uslub bi gën a gaaw ci daawa day tax nit ñi ngeen am crédibilité si seen kanam ñu wóolu la mooy li leen di woo yaa leen ci yaa leen ci jiitu di woote ci joxe te yaa gën a nay ñëpp di woote ci julli te da ngay tardé julli doo jullee si jàkka ja wala sooy ñëwit chaque jour da fay ñetti raakaa bu dee tisbaar sa daawa du am crédibilité si kanamu nit ñi bu dee da ngay woote ci mënatee soxna te fase nga bo toge di wax ci walu ci walu te soxna dañ nan ki day jaaxal kon dañuy yem fofu ndax nag bi dafa macha allah dafa rëy macha allah nag bi dafa reuy xamna dañuy jël ben poj bi rek lañ lañ jëlagum ñak benen yoon insha allah ñeneen ñew duggal leneen ak leneen ak ci nag bi li jub ci kaddu ci numéro borom bi subhanahu wa taala comme ni ma ko waxe sank du waxtaan wo xamne ki ki koy waxtaanee da wajal euh day wax rek ci ay maalumaat yo xamne sadiqa la li jub ci kàddu ci nimbalu borom bi subhanahu wa taala li ci deung yàlla ñu borom subhanahu wa taala jéggal wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manhaju salaf wa da'watu ilayhi moy taqoo yonu mag ñu bax ñi ni salaf salih ak wote ci seen yoon ahlu sunna wal jamaa salafu saalix te alquran ak sunna tagu ci kaw suuf kenn ko defa mu nek rek nek ci soldat suñu borom subhanahu wa taala mooy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ijma'u sahaba te wote jëme ci keur aduna fi xejul ci keur abadan wote jëme ci sant am nañu amul sant wote jëme ci rew munul gide ñep wote jëme ci qabila mana aw xet amna ñeneen ñu xamul na sax xet bobu amna kon yoyu yep xat na